caaxaan ba ma daan alaaji mbay muy Maodo muy Ablaye Ndiaye muy Zos muy Boy Naar mbër yi nga xam ne ñu ngi nii taxaw fii amuñu combat. laax di nga nekk problème. xam nga ma jaaxal Boy Naar. Boy Naar waaw. yéen yéen de. ah Boy la combat. moo xam ah, de dañoo Omar du xam ne damaa war a samay adversaire Omar bu leen seeti waay. man mun naa waale Omar fi mu wax na ma ko. mais man sama yoon newu ci loolu. moom la nga fekk wu ma. damay ak daf ma ne. combat bi bëgguma mu taxaw ma ne ko jox ma liñ ma ciy jox. xanaa loolu mooy bu dee xam nga Balla Gaye si mu ne nii nga ne ko jox ma 10 millions moom mooy rey ko. daf ne ma Kécho woo ma ma ñëw ne ma woo téléphone la ma woo mu ne ma kaay ma ñëw gàlleen toog maris ma ne moom saal bi mu ne ma booy naa bàyyi di ko laaj bugguma ngeen bëre ma ne ko 10 millions lañ ma ci jox ma ko mu noppi amatul lu muy wax sama liggéey nga naan ma arrêté moom laal nga ko moom fi mu ne nii moom yaay xaalis moom fils. yow moom ay. fayeeku nga lu say mag fayeekuwul de macha allah. ma dof dof lu di jaaxaan ba ma daan alaaji bay muy Maodo muy Ablaye Ndiaye muy Zos muy Boy mbër yi nga xam ne ñu ngi nii taxaw fii amuñu combat ndax di ngeen a ngeen bokk famille de. bokkuñ famille de. booy naan sept ans ngi nii déggantewu la comment. moo xam. lan. Ah, non non Omar seeti wu ko de dañoo daje. Omar seeti wu ko dañoo daje. Omar du xam ne damaa am samay adversaire Omar du leen seeti waay. man mun naa waate wax na ma ko. Ah, mais man sama yoon newu ci loolu. moom la ko fekkee moom. damay ak daf ma ne. combat bëgguma mu taxaw ma ne ko jox ma liñ ma ci jox. <laughs> xanaa mooy bu xam nga Balla Gaye si mu ne nii nga ne ko jox ma 10 millions moom mooy ray ko. daf ne ma kejo woo ma ma ñëw ne ma woo téléphone na ma woo mu ne ma kaay ma ñëw gàlleen toog maris ma ne moom rek sant mu ne ma booy naa bàyyi di ko laaj. bugguma ngeen bëre ma ne ko 10 millions añ ma ci fay jox ma ko mu noppi. amatul lu muy wax. sama liggéey nga naan ma arrêté.